extraordinaire ni daal nañu koy envisager lu nu mel nag honorable mu mel ni ñoom ñi lay génnaguñu ba tey ci li nga xamante ni mooy mooy seen projet ngir ñu président de la république bañ a daal di tas assemblée nationale Abdou Mbow moo daal di xam ne lu nu mel ban gis-gis nga am ci li nga xamante ni jéego yi nga xamante ni moom la teg. waaw xam nga ñoom moom bu ñu amee. bu yàlla mayee prérogative ñu ne dañuy voter ay loi noonu tamit la njiitum réew mi yàlla mayee ko ay prérogative. Mm-hmm. muy mu mu mu mu amee kàttan tas assemblée nationale dafa am benn affaire boo xamante ni nii jaar baax na nañ leen wuti am métier rek ñu bañ dina dina dina baax riir mi yëpp dara waralu ko de man de maa nga ci sama métier man man man de ku wax ma ne la du ma politicien ku wax ma ne la accident ma ci dugal gars yi ne kon de sa accident bi neex na lenn moom laa xam ne moom du accident mooy mbirum maire bi moom waaw dañu ko xeex pendant sept ans. di daw kooku moom amul accident. mais député bi nga xam ne moom bokk ci woon man sax dama doon daw ca liste nationale ba fargaa ko dàq ma ne ma demal ca départemental loo fa am bénéfice la. gis nga président de la république moom am na sañ-sañ tas assemblée. léegi nag man benn xalaat bu ndaw rek laa bëgg a joxe ci affaire 31 juillet. ak le septembre li Mimi Touré wax doom bu juddoo le 31 juillet ñu déclaré ko le 2 septembre kañ mooy anniversaire am du le 31 juillet. Mm-hmm. te du ci la am deux ans. bu dee am na deux ans. a ah, jeex na léegi ñi bëgg a wax ne assemblée nationale tant que le 12 jotul du am deux ans parce que ci lañ ko installé woon mais kañ nga dégg yow honorable keroog ba ñu wootee ba gars yi ni wiiw ci guddi gi bi ñuy jubilé noonu la gaa gars yi naan la honorable bi gars boobu lañ na waa ji nekk na député dëgg la wala dëgg waaw léegi nag euh, am na benn journal bu ko bind tey ay problème mu dab ca la ñu bëree bëree bëree bëgg a taxaw di guddal jël dañu ne boo tasee assemblée nationale quatre-vingt-dix jours ngay am pour organiser ay élections loolu cartum réew mi la waaye carte mi nga xamante ni nag dafa ëmb suñu wàllum élection di code électoral su dee parrainage dafa am dañ lay wax ne la cent cinquante jours avant le jour du scrutin cent cinquante jours avant élection lañ war a defar parrainage fële nag moom nday luwaa yi ne la quatre-vingt-dix jours après la dissolution de l'Assemblée nationale war nañ organiser élection léegi ñu ne cent cinquante jours bu ñu tasee élection yi war a defaat fii nii parrainage te ñu war a voter encore le budget avant le 31 décembre ñenn ñi fa lañ sukkandiku di wax ne assemblée bi kenn mënu ko tas sinon duñ am budget ren dugg na fi génn fi fii yàgg nañ fay gouverner ak ay ordonnance coow tasu assemblée nationale bi laa <laughs> eh, illallah liñ ci xam dafa bari ñu bëree bëree bëree bëree bëri jaar mhm. si le vote est secret bu ñu demee vote ñoom ab Mbow ñooy gagné loolu maa la ko wax raison yi ci nekk moo bari député yu bëree bëri fii dañoo dañoo yor ay bor député yu bëree bari fii keroog bi Macky Sall ne dañuy tas assemblée muy yeewi comme muy bennoo ñëpp a bañ même bu dee moom sax fi mu ko bëggoon jaarale moom mooy loolu déggoo ma de. Mm-hmm. ak yenn privilèges yeeg dugg na fii génn fii. ok loolu moom mooy problème mu assemblée nationale guddiñ toll nii nii nii nii nii président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo war a jël big ak fëyam toog fi mu toog li ko ndeyu luwaay may mu ne ko tararaj wax ja jeex gars yi dem tribunal yéeg wàcc mu tëgg ay élections. ay du ñu am budget lu tax du ñu am budget muy collectivité territoriale bu la gaa yi votelul budget préfet ba moom mooy dérouler budget ba muy l' état central la bu la gaa yi defalul budget nekk fi di kii nga dem ak say ordonnance réew mu amul budget fu mu am li ñuy bañ kay mooy ay crise institutionnelle ñu ne suu jomaay léeg-léeg lii dugg na fii génn fii hmm. mais xoolal yooyu ay affaire u caaxaan la saa bu jëlee décision tas assemblée nationale bi kenn mënu ci dara président groupe parlementaire Abdou Mbow ak Amadou Mame Diop ci bokk yem guddal jël bii nag moom mooy indi crise yi. waaw guddal jël bi jaru ko yéeg wàcc bi jaru ko. mais mais Abdou Mbow li moo xam xamle mooy que ni président bu euh, promulgué wul euh, loi bi bu boobaa euh, ci yenn situation président wu assemblée nationale moom dina def loi bi ngir ñu bañ a tas assemblée nationale. est-ce que loolu foofu lañ dul yegg. duñ fa àgg. luñ fa yeggee balaa nga naan na ne fa. waaw Diomaye promulgué na loi bi ñu voté assemblée ak voté nañ ko ak voté wuñ ko balaa ñu fay lu muy xaar ñuy voté non lan lay xaar ñuy voté tey la la la tey du la dë ñaar fukki fan ak juróom-ñett moo ci des buñ ne deux ans. ping mu jeex le 31 à zéro heure je sors le décret le premier août du férié bokk le 4 avril sénégalais yem ci kenn dootul delloo assemblée ñi am métier dem ta ñi amul métier tamit gaayen sa waaye wuti métier ñi jël politique bi nag def ko métier xaar élection député nekkat candidat ñi bëggaa nekk député nekkat candidat ñi bëggul nekk député ne leen man sama tur ba ilaa yow mi diin damay dégg Aline Badara Sougou honorable député ñu làmbi leneen wax ci jeex mais et puis pourquoi toog rek gars yi ne sa man bu ma nekkul lii damay dee voilà non ñoom ni ñu amee sañ-sañ organiser ni lii noonu la président de la république amee sañ-sañ tamit ci biggam bi léegi nag bigam boobu nag moom lan lay xaar leen daal en tout cas dégg naa ko ci moom te loolu info de taille la. Hmm. mooy am na ñuy def médiation. médiation bi nag lan la. médiation foofu. médiation entre entre le pouvoir ak le le le pouvoir ak l'opposition parlementaire. pour ne leen yaru leen. pour déggoo mën a am wala. waaw bu dee nag. am na émission bu ñu waroon a tourner émission boobu dafa mujj fomm. te kooku daf ñu wax carrément nañu ci lii la ñu ne moo tax mënaguma wax instant bi lii ak lii ak lii ak lii. pourtant Abdou Mbow gis naa ko ci benn journal mu wedd démenti na lu ne mel amul benn négociation bu dox ci diggante état bi ak ñoom euh, ci diggante gouvernement bi ak ñoom donc. <laughs> Abdou Mbow lu muy <laughs> wax ne loolu. même bu dee médiation dafa am. du ko wax du ko pour des raisons d'état moom sa position. Mhm. moom bu ko neexee moom moom président groupe parlementaire bu ko neexee mu toog ne y a aucune négociation. wala aucun nangam sangam dugg na fi génn fi. pour des raisons de de sécurité balaa yàqkat yeeg nangam sangam dugg na fi génn mais dama ne dama ne jaara. Hmm. man maa la ko wax. médiation actuellement nii. dafa am ñoo xam ne ñoom dañ koy dox. te médiation bi nguur gi wutuñu ko de. ñoom ñoo koy sàkku. ah xaw ma ndax ñoom ñoo ko sàkku daal waaye daal du nguur gi ñoom wutuñu ko mais ñii nag ñoom ñoom moom jóg nañ ña nga ca doon dox. Euh, professeur loolu moom man maa la ko soufflé nga ne ma Abdou Mbow nangam. <laughs> jamono ji ñu toll nii ñu ngay dox ay jéego ngir li nu mel mën na daal di bañ a antu ban gis-gis nga am ci euh, député Benno ak jéego yi ñuy teg jamono ji ngir ñu a tax. ñoom euh, parce que damaa yaakaar seen intérêt. <coughs> Mhm. seen intérêt moo ci nekk ba nga xam ne peut-être bañ nañ ñu ñu tas ko intérêt bi nag day doon ñaar day doon privilège benn day doon ay intérêt politique. parce que am na ñoo xam ne aussi euh, dañoo taxaw temm pour jàmmaarloo ak régime bi taxaw fi mm-hmm. jàmmaarloo boobu nag mu ngi jaar ci yenn yi nga xam ne war nañ koo jàllale assemblée nationale muy vote budget bi euh, vote de certaines lois ainsi de suite ainsi de suite léegi nag bu dee yow da taxaw rek pour xeex wala pour opposer wu nga am benn moyen boo xam ne yaakaar nga ni moo bokk na ci sa moyens yi ëpp doole pour nga mën a opposer wala pour nga mën a xeex mm-hmm. da nga naan doo ko ba député Benno Bokk Yaakaar yi ne ñoom euh, pare wuñu pour ñu tas assemblée nationale la preuve mooy débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne waroon na am samedi ñoom ñu fexee débat boobu noonu ñu euh, reporter ko mhm. cest di dire que ils ont refusé euh, pour débat bi bañ a am parce que ñoom nee nañu le premier ministre Ousmane Sonko reconnaître wul assemblée nationale bi mhm. léegi nag bon bu day ñoom taxawee nañ taxawaay boobu ne duñ ko tas mooy li may wax rek am na ñoo xam seen privilège ñu ngi ci am na ñoo xam ne ils ne sont pas de benn honorable wax na ko mhm. mais seeni ceeb mu ngi ciy niin am na ñoo xam ne ils ne sont pas de benn mais ñu ngi ciy gis seen bopp mhm. ñooñu bëgguñu ñu tas assemblée nationale mais encore une fois man li ma waxoon laay wax bu dee aucun député euh, de Benno Bokk Yaakaar parewul pour am une position républicaine assemblée bi mérité na ñu tas ko assemblée bi mérité na ñu tas ko assemblée bi mérité na ñu tas ko encore une fois su dee yenn député yi dañoo am yenn taxawaay yi nga xam ne waruñu koo am. Mhm. parce que député du peuple kuñ ko wax répétition la. député du peuple kuñ ko wax dafa fekk ni yow da ngaa war a taxaw taxawaayu peuple bi mais lan moo tax ci biir assemblée nationale am ñoo xam ne dañuy am mérite di glorifier wu di ñu leen di présenter comme des députés du peuple parce que pendant ce temps am na ñoo xam ne dañoo fayir seen mission. Mhm. fayir seen mission mooy lan. mooy que au lieu ñu taxawee taxawaay boo xam ne dañu leen war a gis comme des députés du peuple mais malheureusement dañuy nekk député du parti wala député de la coalition wala man député wii laa député non laa wala man député kii laa kii lu mu wax ma yëkkat sama loxo bu dee d'accord na ci mm-hmm. wala ma ni non man jaara laay xaar mu yëkkati loxom rek bu yëkkatee loxo man ma yëkkat sama loxo parce que man jaar rek laay topp mm-hmm. xam nga tey ji nag assemblée nationale bu ñu demee ba mu nekk assemblée wu man kii rek laay topp bu dem ba mu nekk assemblée wu doo fi waxee ñu dem ba mu nekk assemblée boo xam ne le président de l' assemblée lui-même il est complice parce que gis nañ ko fii ci président assemblée yi nga xam ne ñoom ñoo fi mujjee jaar ni là y a problème assemblée nationale boobu dama yaakaar ni euh, euh, bale bi dafa foor a dugg bale bi nag nan la fay duggee le président de la république a les prérogatives de dissoudre l' assemblée nationale mën na ko dissoudre léegi nag comme ni ko honorable waxee am na ñoo xam ne ñu ngi def ay médiation donc euh, le caractère républicain boobu moo doon day ñëw léegi nag médiation bu amee mooy que soxna jaare yow certes bokk nga ci benn coalition wala bokk nga ci benn parti politique bi nga xam ni c'est un parti bi nga xam ne dafay opposé wu ak euh, régime actuel bi nga ne ah man kat dinaa yaru bu dee loi bi arrangé na sénégalais yi kat man dama koy voté bu dee arrange sénégalais là j'ai le droit de léegi nag ñu ne loolu noonu lu tax jaara amu ko woon bu yàgg ba muy nekk ci assemblée nationale. Mhm. lu tax jaara mii nii barki Demba Ndiaye mu bëggoon fi reporter élection lu tax jaara mi barki Demba Ndiaye mu soulever fi problème corruption de magistrat léegi nag loolooy la loolooy kaw ñu ngi am benn reconfiguration de nos que ni ah lu arrangé parce que man sama arrangement ci lu arrangé sénégalais la nekk mais est-ce que ñi danañ doxee noonu. Mhm. dafay am benn peur dafay am benn doute boo xam ne état bi dina ko am parce que euh, li ñu naan sa noonu démb bu doonee sa xaritu tey ay pexem moo jubul <laughs> ay pexem moo jubul te pexe yooyu nag à chaque fois mën na renaître mën na defaat yeneen pexe pour daane la léegi nag li gën a nekk assurance ci état bi mooy tas assemblée nationale defaat ay élection waaye nag bu dee médiation mu ngi am xam naa daal euh, état bi day mujj ne leen yaru leen nii la ñuy dérouler vous êtes d' accord ñu d' accord. mais est ce que loolu honorable médiation boobu supposons mu daal di am naam ah, Abdou Mbow moo wedd na lu ni mais bu amoon est ce que déggoo ba ca war dina am ci biir assemblée nationale. coow li moom mooy président bi warul bàyyi gars yi sax di dem di voté bu ñu demee vote moom mbir mi nekk vote secret rek loxo dinaa dar gémmiñ. waaw. waaw te ñoom dañ te ñoom te ñoom li ñu bëgg mooy ñoom li ñu wax mooy ils vont proposer à ce que le vote soit waaw vote secret moom yow doo xam nga kan moo wote wii kan moo wote non à moins di ñu def mbirum di dictature comme ñoom bi ñuy voté président assemblée nationale ni leen ñoom Farba Ngom ak ñoom Macky Sall defoon rek par force yéen ñëpp defal leen seen i enveloppe jox leen ko nii dinañ acca te léegi sax indi nañ ay appareils yu bees yoo xam ne dégg naa waa Corée ñu ko may comme France da toog fi nga toog noonu rek ne cuuj dañ naan la wii ou contre baa ngi nii rek nga bës fi nga toog noonu yow ak yàlla rek léegi nag balaa ñoo yegg foofu noonu yëpp. ñu naan majorité bi ci boppam nee nañu assemblée bi kenn du ko fi tas lu mooy juróomi atam daa jeex yooyu yëpp nag balaa ñu faa yegg. sa waay na préparer décret bi xaar bis bu rafet. salaamaaleykum du violer benn constitution constitution moom moo ko wax ne ko bu amee ñaari at am nga sañ-sañ gaayen bom waaye yow ma ne France <clears throat> ba président bi annoncé dimanche ci élection européenne yi ne damay tas élection yi ak bi ñu demee élection fukki fan ak juróom la est-ce que mat na ko te teewul président ba ci boobu moo waa këram ndaare lañ jël presque troisième. avec vingt waaye yow man yi ah eh, eh wuy ma résultat yi jeexul. France pare nañ ci. sugu 2012 laa dem États-Unis xam nga lan lañ lay wax. Mhm. dañ naan la guddik élection yi bu jeexee boo xëyee suba teel da naan dëkk bi amul woon élection xam nga lu tax mhm. <laughs> xoolal. lépp luy xeetoo ak foto publicité nangam ci rajo xaw élection yi xoolal tourné nañ sa page. Mhm. pare nañ ci. résultat la ñuy wax ak yooyu. noonu ban résultat yi génn ci guddi gi ñun ñooy def élection ba pare di toog ay une semaine ñu naan non ñu ngi xaar cour d'appel ñu ngi ñoom venteur ñu def seen télé bu ngand boobu ci TF1 écran bi xam nga def dix secondes neuf huit sept six cinq. 4 3 2 1 rek image ba génn. ñu ne la nouvelle élu nii kii moom lañ fal wax ci jeex. mais Sénégal la ay élection di jeex ñu continuer waat campagne. ci suba sa sax soo moytuwul kenn du liggéey. permanent waaye yow campagne at ba élection bi ñëwaat dañ leen waxante dëgg président de la république nag Diomaye moo warul may nit ña loolu. ñoom aussi dañuy def rupture xam nga rupture rupture bi naan nu nu muy amee. la woon woon nii. la woon ba woon niwul dut day dugg. Mhm. dut bu duggee pëccëxoo day am si sa biir camp yow yow sa bopp sa biir camp. Mhm. parce que il fii nit ñi commencer di gis les mêmes faits. les mêmes gestes yi di revenir les mêmes têtes. day perturber nit ñi boo y passé fii le fait que ñenn ñi commencé gaañ di ñaxtu ci yenn direction yi dëgg la état continuité la. mais am na ñoo xam ne ci dëgg-dëgg jaruñoo fësal. jaruñu fësal. administration lañ nekk ñi ngi seen place su liggéeyukaay on les reconduit nga bàyyi leen noonu ci ruq bi jarul ay def ay ay ay ay ay publicité yu ngand mel ni kuy kokkali ñi nga xam ne yow da ngaa àndoon ak ñoom dëgg la de. attention am na ñoo xamante ni nii gars sa waay yàggul dara dara dara dara ñi ngi woon ci meeting waa Amadou jàpp nit ñi gaaral gu meeting goo xam ne wala jaar ca digg ba. ñooñu bu ñu toogee tey gisaat leen ci kanamu RTS gi gars yi ñu bootu ci ginnaaw ab ministre wala gars yi naan naan sàngam sàmb Koro Ndiaye. yow mi bokkul Pastef sax te dem vote rek sa xol bi day bitaagaas. am na ci koo xamante ni moom bu ko booy Pastef jàppee ba bàyyi ko daa wàcceewaat nànk ka mu fal